ndax bëgg naa nit hmm. nga suturaal doomu aadama ku di jigéen jigéen yàlla ma ko suturaal ndax boo suturaal jigéen suturaal nga sa yaay hmm. boo suturaal doomu aadama yàlla suturaal na la hmm. yàlla suñu boobu nee na xoo ina mi ko ree tamit na naf lu mi jine ina sami naa da suturaal doomu aadama suturaal la nga weer doomu aadama nga weer ma weer doomu aadama balaa ngay dee ma weer la yàlla suñu boom da léegi doo doomu aadama fii ku fii ku def nit lu bon njëkk a déwén uh-huh. mu jigli daa fekk ne la kaa jiin doomu aadama da ngay sutoo doomu aadama da ngay nit doomu aadama da nga fekk lu ñaaw yow yaa ngi ni di yàq police mbay léegi léegi naan ko naan ko dafa dem dafa demoon Dubaay di def leneen ak leneen dama dama dama def ma fayu moo tax mais mais mais du du ni Ouzin yow waroon nga am esprit grandeur boo xam